mbokk yi asalaamaaleykum yéen a ko doon laaj andil na leen ko seen émission jotaayu jànkat yi fii ci DSTV Dieng Saala ñu ciy ànd ak bépp jànkatu xasaay waaye mbokk yi képp koo xam ne ba nga ñu invité la mën nga jokkoo ko ci numéro boobu 77 612 30 60 avec DSTV Dieng la seen relation yi actuelle. aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin

mbokk yi seen émission jotaay jànkat eh, ni leen ko waxee woon rek bi jàll dajal dalal nañ Balla nga xam borom bant jalamaan bi tay ji nak eh, ñi ngi del si am gan gu mak muy Serigne Modou Fall waye Serigne Modou Fall bu université bu Serigne Mountakha xam ñepp ràññee ko machallah eh, muy ku meuna jang waye balay balaa loolu koy jox rek bu ko defee mu daal nuyoog mbokk internet yi bu ko defee ñu daal di wéyale waxtaan inshallah a'udhu billahi minash shaitaanir rajeem bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci bi sant Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul noo ngi ñaanal suñu ñaari waajur yàlla suñu borom xaar leen àjjana yi gën a kawe di jiital ci nuyoo beeg siyaar bi nag Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ko ñaanal suñu borom guddal fanam lool te wéral ay cëram waaye di am mbégte lool ci teew fii ci tey ci seen télévision bi ñuy wax eh, DSTV mm. eh, ñu gën koo xam ci Dieng Saala TV kon ñu fas yéene ànd ak yeen ci liggey bi euh comme e, niñ ko baxo di amale waxtu ne sa suné ci waxtu yi kon ñu ngi nuyu ñepp di ziar inshallah di gërëm ñepp mm-hmm. di bal ak ñepp di balu ak ñepp mm-hmm. di ñaan yàlla ci dugg ci alhamdullilah rabbil alamin mm-hmm. barkeb Serigne Touba def Serigne Modou Fall Xasaayit ci nuyo bu am am solo bobu oh, tabarakallah mbokk yi ñi xam yene sa DSTV kamera abi eh, sri abi bucam di realisation abi ak serigne eh, baymu mudlo serigne eh, mom njay teranga ñepp rek serigne bousine njay 360 euh tabarakal waye ba la ñew tambali waxtan ci ko xana nga ubi ñu ay beyti xair bu ko defé ñew toga tambali waxtan a'udhu billahi minashaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يبارس الملتقم البارس من براس من بارسني براس من يبارس الملتقم البارس من براني باخي من الأمراض وكب من أنكر بإفرادي لو شكوري على آياتي عبدا قديما فاس بالعيات أذكرها صبر الذين سربوا من نبي وللجناد قربوا قصد آيات لا ترى لخيري معجزة بانت لحسن خير يجاد الجواد بالجاد وجول ليكون سنقياد آياني الباخي بلا إمات ولا تناس ولا سمات زادني الباقي الكتاب العسمات ولولا لاقي كل من تعصم أني جنى والدتي والوالدة خيرا كثيرا لا يسال خالدا نفعني بالمستوى مصفي الذي تسليما ونفلا فيه داخلا إلى سكون من سكر لي خلق بقائي يا من ربي مالكي قليلي والعبيد وقد ما أني يداه طبيب برأني من كل عيب ومرل وهادني سعت في كل قرل بارك الله في بالتجار إلا الذي أذهبه لن ترتجى والكريم الأكرم المكرم ولي من ولا يريم الكرم محمد الوسيلة وجنتي عن كل سائل وأسى وجنتي ينقاد من يسر من أنسلام وبعلي وعبد وأفضل رسولنا أحمد كل الأخلاق الذي خير الصلوات الأعلى سند له وكار أبداء لنا من راسي وسفا خلدا قلبي صفى بكون ربي قليل هبي ولي جعل كسرا خليل وداني على وتدارين وفيما جعلني جارين نفعني بما بدا وما اختفى وكونه لبالمنايا ما اختفى قربت بالله الكريم والرسول وحزبي ووصف منه خير رسول jërëjëf sëñ Tuubaa euh, jërëjëf Serigne Modou Fall xasaayit euh, macha ci xasaayit yu am am solo yooyu euh, tubaarikàlla mel ne air boobu buñ ko déggee rek ñu dana am fu xel jëm macha allah Serigne air bi mel na ni air Serigne Abdou Lahad Seye waaw Serigne Modou. ñu hmm. am mbégte lool nag di ñaanal Serigne Abdou Lahad Seye yàlla suñu borom xaare ko àjjana. taas na ci barkeem. amiin amiin air bi mel na ni air Serigne Abdoulaye Seye Gueye la. ndeysaan yaakaar naa ni kuñ ci dégg rek da xam ni. Mhm. duñ ci gan te it am nañ ci ab cër. ndeysaan waaye lépp rek dañuy ni ci mbaaxu Abdoulaye Seye Gueye la. ndeysaan waaw. Euh, macha allah sëñ euh, Abdoulaye Seye Gueye yàlla yàlla yokk ay leeram te taas na ci barkeem. waaye maanaam euh, comme air bi na ci bari waaye lan moo la neex ci air Abdoulaye Seye Gueye rek nga tàmm. waaw sëñ Modou mhm. Abdoulaye Seye Gueye yàlla dafa dogal. Eh, ma juddoo ci kanamam ci daara yi sëñ Abdou Lahad sama waajuru góor yoroon ko ci daara ji yàlla dogal muy yëngu ci xaside yi mm-hmm. ma juddoo ci kanamam màgg ci kanam bi ma demee ba màgg nag gis mm-hmm. ko ci xaside yi mm-hmm. ma bëgg ko lool moom it mu bëgg ma lool daanaka bi ñuy tuut tànk muy jànge day jàpp suñu loxo ba niñ nekkee magum jëm bi yàlla dogalee mu jóge ci daara ji ñu teewul ñun ñu féete continuer nekk ci daara ja waaye teewul fu ñu duggee ci dëkk bi rek ci Touba. fu ñu a nekk buy jàng dina ma woo ma. Eh, donte donte commencé gu ma am jàng waaye bu ma ñëwee danaa ma yow toogal sama wet. ndeysaan yow toogal fii sama doom nga. Mm-hmm. kon kooku damay wax ne lu nekk ci man. Mm-hmm. ginnaaw yàlla gërënte beeg sëñ Tuubaa ak Seex Abdou Lahad mi nga xamante ni. Mm-hmm. moom lañu bokk yaakaar. Abdou Lahad Seye moom moo ko def ci man. ndeysaan a uh, Serigne Modou Fall macha allah Serigne Abdou Lahad Seye Gueye moo ko def ci yow. waaye mel ne Abdoulaye Seye Gueye dafa mel ne daana jàng comme air er, comme wax njàngum aw dafa mel daana ko def ndax yow da ngay jàng aw wala yow ci réserve nga yem waaw euh, njàngum aw mi nag bi may door a commencé njàng mi mhm. daan naa ko def mhm. waaye dama dem ba ci biir mhm. mu mel nii pour am gone yi nga mu ngi xam te ne ni am pour déggoo ci ak ñoom xaw a jafe lool moom mujj gi rek jël njàngum kenn mi kenn daal dafa dafa gën a yomb daal waaw xam naa ni moom moo gën a metti nag Ah. waaw moo gën a metti xay na moo gën a yomb waaye moo ah, gën a metti boo boo jékkee war a jàngi di woo kenn nekk yaa ngi ak si yooyu xam nga xaw naa metti xaw naa metti aw moom ndax ndax ndax gi mooy boo mm. waree jàngi fenn mm. wala war war a ngi génn mm. ku ne nga dajale leen day metti dajale leen da ngay woote ba sonn yenn am ñu ñëw saa yi nga xam te ne fekkoo leen jekk duñ mën a ñëw ak boo paree war a doog ñëw waaw kay waaw yooyu yëpp moom daanaka <laughs> <laughs> dara sax nga eh, dañoo dem ba ah. jot gi mayatuñu ko. mayatuñu ko loolu moo tax daanaka. Mm, mm. ñu bàyyi njàngum mm. aw mi. E bu ñu musaan di jàngi tubaab yi léegi yëpp. dañ daan am ay xale yu daan aw. waaye te biñ demee nag ba yàlla dogal jot gi mayatuñu ko. mayatuñu ko xale yi amatuñ jot. amatuñ jot ñu bàyyi leen kenn ku ci nekk. ka ci liggéey bi nekk ci liggéey bi ñu di wéyal njàng mi. ndeysaan kese ndeysaan. allah macha allah am na solo Serigne Mourou Fall euh, maam Thiam Bambey si ñu ngi koy ziar baax kuy bàyyi xel seen bi la euh, ak waa daayira Mafaatihul Bichri ñoom ñëpp ñu ngi leen baax a baax a baax waaye bu nu laaj ne sëñ Modou Fall maam lan moo ko euh, dugal ci njàngum xasaayit waaw euh, sëñ Modou hmm. waaw njàngum xasaayit nag liñ naan bëgg rek bëgg rek dugal ndax li mu ci dugg walaay la xasim hmm. foruma ji sax hmm. waaye nag dimbalu sëñ Abdou Lahad moo ma dimbali ndeysaan ndax booba bëgg naa ko lool may wax naan nan laay def bay jàng xasida ci ku farul iji waaye li naan li nga bëgg rek da ngay dem ba dalay daal di moom dëgg la dëgg la loolu moo ma dal ci njàngum xasida Eh, bi ma ciy dugg it metti na lool mm-hmm. ndax nga dugg ci njàngum xasida mm-hmm. mokkaloo jawartu mm-hmm. eh, pour nga def ko dana jafe waaye nag gëm-gëm bi ak bëgg gi sëñ Tuubaa ak bëgg xasida yi tax na tey daanaka fi ma ci agsi yëpp loolu moo fi indi ndeysaan ndeysaan jërëjëf muy da amaam solo euh, Serigne Modou Fall euh, xasaay tubaarikàlla ñëpp min ko mu nekk ci université euh, Serigne Mountakha bi nga xam ne si université Amadou Bamba fii muy la am am solo ñoo ngi si yàlla El Hadji Kab Eh, borom bay di zone ñu ngi koy siyaar baax baax kuy baye xel seen bi la euh tubaarikàlla wa groupe fédération Serigne Balla Fall nga xam ne ñu ngi wajjal gam gi euh groupe fédération bi ñepp rek eh, ñu ñoom ñepp nuyu na leen tubaarikàlla waye serigne Modou Fall ndax mom jang rek lay def wala wala am na ko waw euh serigne Modou njàng mi nak yaakar na ni. Mm-hmm. li ko booleel mom bo dee xol mm-hmm. ñepp xam nañ ko. Mm-hmm. ku ne xam na ni ma ngi jang waye ma ngi liggéey. ya ngi liggéey man loolu la xam. ci loolu la ya ngi ibadat wal khidma waw man ci loolu lañ mayal ndax sëñ Abdou Lahad ku ne mhm. xam na ni ku ko xam mhm. xam ni liggéey rek la xamoon liggéey rek la xam te it ci keppaaram laa juddoo ndeysaan moo tax it ci lañ ma yar mhm. e, yàlla dogal na it du ma duggee ci njàng ba léegi it maa ngi ko booleeg sama liggéey metti na nag waaye yàqale gu ma dara loolu di ci gis di ci di ci sant sëriñ bi bu baax a baax a baax a baax oh, waaye jàng bi liggéey bi nan koy boole ndax doo ci dund ay jafe-jafe ndax Euh, da ngay jàngi programme euh, xëy suba ay nelaw xaw laa jàpp yooyu noonu noo koy lijjanti waaw loolu dana lu metti la mm-hmm. ndax euh, li gën a gàllankoor ci sunu suñu yaram sax mm-hmm. loolu bokk na ci sax ndax jàng yi war a ñëw dallu mm-hmm. da ngay xëy dem liggéey doo nelaw doo def dara xam ni nga koy tegale fan mm-hmm. demoon nañ ba mujj gi sax ñu jàpp ni mm-hmm. baat bi sax mm-hmm. demoon ba sensé waaye loolu lépp ñàkk nelaw ga ñàkk dallu gi rek moo ñu ko teg bañ dem hôpital ñu xamal ne ñu daal li ko waral baat bi dara nekkut waaye coono yi bari na ci baat bi ba tax na boo ko boo boo boo dëlluwut bu baakha a baax. Mm. mën na laa gàllankoor lu bare bare mm. bare bare. Mm. lolu taxana sax ñu gëj xaw nañoo gëj a jàng tuuti. waaye lépp di récupérer rek. récupérer waaw di récupérer rek. ci baax léegi dallu baax a baax waaw. Oh, macha allah Serigne euh, Modou Fall ndax mom amna ay erreur bopam diko jang wala mom da yam ci erreur obligate sey geeb rek. waaw euh, amna ay erreur bari yo xamanteni euh dama koy jang ndax euh, yaakaar naa ni bo xolé laysal biro bi Mor sambu bi dama koy jàng. Mara Seck dama koy jang ak erio air yo xamanteni air air yi nga wax euh, bu ko mayni tout rek ben weer wala ñaar biir bu ko defé ñu la ri bo ci hmm. bëgg mara bi wala wala wala bo ci bu la gëna rek ah ma sha Allah A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillah aqul mubin hmm. man kawna la yabin على الكتاب المستبين مع الجميع لهم الحمد لأق المبين من كونه لا يبين على الكتاب المستبين مع الجميع لهم أحمد ربي العظيم عمدا كثير للعيانين يليم مصليا على الكريم قاد الورى للمنهم أذكر سال عرس المجيد شكرا يلاقي المزيد مسلما على الوحيد بك الكلي وكلمي سكرت إذ بخدمة معيسني سا خدمة في حلني لو وفاك ولني لو قتا بدايا بما يغي بما ديا وانقاد اخرى أخراديا سادا لدان الكرمي ما شاء الله آه، ما شاء الله جرجف جرجف سرين مودو فالخسايت ah tubaarikàlla mu mel na ni heure eh, eh, boobu moom eh, sëñ Mara Seck macha allah ñëw na bu baax sëñ Modou Fala ko fu ne la ne ah tubaarikàlla ñu ngi leen di baax yéen xam ne yéenay topp GNZ Mobilité STV Dieng Sala la jeune religion yi baax a baax sëñ Abibou Thiam ci caméra bi réalisation bi ah, Baye Modou Lo njaatiraan sëñ Bitou Ndiaye 60 ñoom ñëpp rek FAB ci groupe Dieng Sala bokk ñoo ngi koy ziar bu baax a baax a baax ah, tubaarikàlla waa groupe Dieng famille ñoom ñëpp ñu leen ziar ca boobu ba sëñ Baye Modou Diobé Euh, kilifa jotaay ba Serigne Baye Saliou ak waa groupe yëpp rek ñu ñëpp ñoo ngi leen di ziar baax di leen jox seen wàccuwaay euh, tubaarikàlla waaye Serigne Modou Fall moom ndax euh, am njàngam ci réew mi rek la yem wala mi am ay programme bitim réew moo xam Afrique wala Europe. waaw sëñ Modou sañ Modou Fall nag xam naa ne pour l'instant nii am mm. njàngam. Mm. Mm. moom génnagul réew réew mi. waaw génnagul réew mi. daanaka ci biir réew mi rek la ñu mm, nekk. Mm, mm. biir réew mi taxul sax ñu circuler ci bu baax a baax. ndax liggéey bi ñu yoree. liggéey bi waaw muy liggéey boo xamante ni. comme liggéey jàmbur la. am na yoo xamante ni moom sa bopp. doo sa bopp waaye circuler bi moom defaguñ ko ci lu bëree bari ndax yaa ngi koy nag ñu ngi oh, jàngi nag. ñu ngi jàngi ndax yaa euh, di ko bàyyi xel jàpp ne war naa ñu wala da nga cee. waaw ñu ngi koy bàyyi xel bu baax sax. xam ni. incha allahu rabbi. ab liggéey bu mag mu ñuy xaar ci kanam te incha allahu rabbi mm-hmm. bu paree ci liggéey bi ñuy def mm-hmm. Mm-hmm. yaakaar naa ne suñu yitte yëpp moom xasida yi lay doon xasida yi lay doon waaw euh, jërëjëf euh, Serigne Modou Fall macha allah euh, tabarakallah waaye Serigne Modou Fall sa diggante ak jànkati ci question bu solo boobu sama diggante ak jànkati xasida yi nag moom lu yàgg la ndax loolu ba dara doonu doonu woon dara la woon ndax bu musaan di jàng dama daan topp ci seen ginnaaw di daw ci mel ni Serigne Mara Seck mi tey Serigne Xaarim mm. Guèye mm. Abdoulahab Diouf Abdoulaye Seck mm. man naan la bu ma bëggee njàng dëgg-dëgg nag Abdoulaye Seck ci la bokk bokk na ci ñi nga xamante ni tax na tey ma doon réewe doon ab jàngkat waaw waaye jàngkati xasida yi moom bari naa ci ay xarit lool wax dëgg yàlla donte nag maanaam relation bi dëgg-dëgg dem beeg dikk bi bariwul waaye am na ci ñoo xamante ni moom maa ngi déggante ñoom am na ci ñoo xamante yenn saa yi ma Euh, euh, comme connaissance bi ma am ci mm-hmm. télévision yi mm-hmm. ma boole leen ak benn télé mu dalal leen yëpp wax dëgg yàlla am na am na am naa ci am naa ci glaabir lool ci côté boobu ba ndeysaan da nga gis koo xam danaan ma yow Modou Fall ndeysaan mm. xol bi nga am yow rek yaa ko a am ci jàkka bu ñu war laa invité télé nga ni diw kaay dem loolu dafa dafa te wax dëgg yàlla yàlla dimbaleen ci côté boobu moom amu ci ak coxor mm-hmm. ndax bu ñu sañoon ñëpp nekk ci kanam ñu nekk ci ginnaaw topp ci seen ginnaaw loolu moom mooy suñu yéene suñu diggante ak ñoom ndax ñun li ñu ci yitteel mooy mm. sëriñ bi rek lañ lañ ciy topp mm. bëgg gi sëñ mm. ñu ci yàlla kon sëñ bi rek lañ ciy gis euh, jërëjëf sëriñ Modou Fall sëñ bi rek ngeen ciy gis am euh, topp DSTV Dieng Saala ñu leen jaajëfal bu baax a baax euh, sëriñ Modou Fall maanaam lan nga yaakaar ne njàng mi am na ko loo xam ne Euh, luñ ci war a génne la wala loo xam ne war nañ ko cee yokkaat. waaw njàng mi de moom li may wax rek. Mhm. saa su ne mhm. moom laay wax. Mhm. mooy xasaay dafa nekk loo xamante ni. kenn war koo fooye. waru koo fooye képp ku ci nekk di jàng rek war ngaa xam. cër bi nga ci am. nga téye ko bu baax. loolu. Euh, damay dégg sax a chaque fois. yenn saa yi nga dugg ci internet bi dégg benn waay boo xamante ni. da gis muy dal ci kaw jànkat yi ndaw yi. Mhm. naan dañoo war a liggéey. waaw waaw xam nga xeet yooyu. yooyu yooyu. mel ni fan yii ne ko ma gis na ah, euh, muy dal ci kaw waaw maa ngi koy gis mhm. maa ngi koy gis sëñ mhm. Modou sëñ Modou. muy dal ci kaw jànkat yi dañoo war a liggéey yéen àgg na ci sax ba ni. jànkat yi bu ñu leen invité fenn. danuy jël ay tel dañuy sàcc ay téléphone. dañuy sàcc waaw loolu man dama koo ñaawlu trop. wax dëgg yàlla ñaawlu naa ko ndax xasida yi moom. sëñ Tuubaa mooy tànn ñu ciy nekk am na ci ñoo xam ne sëñ Tuubaa nag da na tool nag mu nekk ci. Mm. boolewuñ ko benn métier. boolewuñ ko benn métier. donte nag man maa ngi ko booleeg sama métier. Mm. waaye nag teewut képp koo xam yaa ngi ci nekk ko it. Mm. sëñ Tuubaa da leen ci defal xewal yoo xam ni mën ko bañ a booleeg benn waaye nag boo ko mënee. Mm-hmm. mooy li gën. mooy li ko mënee booleeg métier. mooy li ndax jàng it mënoonu toujours ma jàngi. ndax nit yi day sonn. day sonn waaw mënoonu waxtu wu ne ma jàng. Mm-hmm. yenn say programme yi du am. Mm-hmm. kon bu la fekkee nag ci métier lu mu néew néew néew néew suñu borom mën na la caa suturaal kenn du la xamal dara mm. waaye boo amul métier rek daanaka ñaare te doon jànkat bi ndaw mm. bëree gooy programme mm. ku la war a xamal dana la xamal ku la warta xamal la xamal waaye boo yoree sa métier dara ni ay jànkat yi ndaw lañ te nekk ci yoon wi e doon te nekk ci yoon wi bëgg àgg fa mag ñi àgg waaw loolu daal laa leen di conseil waaw ñu def macha allah jërëjëf Serigne Modou Fall ci conseil yu am solo yooyu ne euh, ko bàyyi xel baax a Ah, tubaarikàlla comme ni ñu ko waxee woon léegi ci waara tubal xidma ah, liggéey ak jaamu yàlla ah, tubaarikàlla Serigne Modou sa bi la ñëpp xaay mooy bi nga oh, da jàng si sol bi mhm. tëri bu vert mu mel ne ñëpp xàmmee nañ ko mhm. parce que émission bi ne ñu bëree bëri danañ ko daal di xam ndax yaa ut tey soltani bi di jàng noonu wala wala wala wala nan la demee waaw damay wax ni sëñ Tuubaa moom hmm. noo dugg moom rek Ah. noonu lay feeñe ci si man bi ma ciy dugg mm-hmm. sëñ Bassirou njaay mii xam na ci dara mm-hmm. bi ma koy def Bassirou Ndiaye ñu bu baax a baax ñoo ngi koy nuyu lu bari di bu baax a baax a baax mm-hmm. eh, nga xamante ni eh, bi may nekk ci université bi di yëkkati de booba dama ko doon def ngir di liggéey sama yaram tàng rek ma yëkkati biraasuma loolu ba ma koy def def mu ko ngir lenn wóoru ma nit ni ko kaay filma ma ma yëkkati damaa yëkkati rek nekk nit ñaa ngi filma ndeke vidéo yooyu tas na ci àdduna bi. boobu leen tas ndax ay site yu bari sax di jeex na ginaar bi nag la site yi ñëw. Hmm. almuridiyeen ñëw ak yeneen ak yeneen. ndeysaan kenn ku ne naan naan naan jànkat bi jàng affaire bi nag man xawoon na maa jaaxal. waaw waaw waaye ndeke daal sëñ Tuubaa daal. kéemaan la booy jëf ci moom euh, nekkal ci yoonu yoonu bu baax te dëggal ci rek boo ci dëggalee rek hmm. sëriñ bi moom mooy ñëwal boobam te wóor na ma it nag hmm, sëñ Tuubaa ma fekk si foofu loolu moom leer na ma naa ñu fekk si macha allah muy lu eh, leer. loolu wér na ma wallahi eh, muy leer Serigne eh, Modou Fall macha allah ñu ngi koy ziar bu baax a baax. suñu yaay yaa mbaaju ma macha allah muy waajur suñu Bassirou Ndiaye 360 moom day topp yëf bu baax a baax Ngom ak waa kër gi yëpp rek tubaarikàlla waaye Serigne Modou Fall ndax am ay groupe bi soppe wala ay daayira soppe ndax am na loolu. waaw sëñ Modou waaw loolu am naa ko ndax. daayira soppe waaw daayira soppe am naa ko boo xamante bu mag la. Mm. dëgg yàlla ak daanaka mat na ñetti téeméeri nit fi mu toll nii. Mm, macha allah tey ñi koy ñi ko taxawal. wax dëgg mm. yàlla dama jékki-jékki rek. Mm-hmm. gis sama numéro ci biir. gis numéro ci biir ubbi man ubbiwu ma ko. Mm-hmm. woowu ma nit ni ko kaay damay wuti soppe. Mm-hmm. damaa jékki-jékki rek ubbi ko dugal ma ci biir. man loolu laa ci am. ñoo ko ubbi woon nag ba léegi. ñoo ngi koy doxal. ba fi may wax yow nii am na lépp. am na lépp waaw am na président. góor ñi amna na présidence yi jigéen ñi. Mm-hmm. amna na trésorier amna na secrétaire am na lépp. ndax waa réew mi la wala am na bitim. waaw bi bi ñu ubbee mm-hmm. biñ toogee ba yàgg sama benn soppe boo xam Espagne la nekk. Espagne mm-hmm. yàgg maa wër te mënut am sama numéro. ndeysaan mu daal di ubbi groupe soppe. après bi ñu demee ci lañ ko jox sama numéro mu woo ma ne ma atum yàlla de maa ngi la koy wër. ndeysaan soxna Nogay Ñang nekk fële ci Espagne maa ngi koy nuyu bu bëree bëree bëri nga xam te ni ndeysaan ku baax la ku ma bëgg waaw ku baax la ku ma bëgg kooku moom moo ubbi groupe boobu ci Espagne mhm. moo ko soxna Penda ñoom soxna Rama mhm. soxna Ndaak ñoom ñi nga xam ñoo féete Espagne ak yeneen góor yàlla yoo xamante ni mhm. ñu ngi Espagne te bokk ci groupe boobu mi ngi dox ak bii it mi ngi dox gannaaw bi sax dem nañ ba bëggoon koo boolee groupe yi ñaari groupe yi waaye ginnaaw bi laa nii mm. eh, comme yàlla dogal na ñee ñoo ko ubbi te ñoo féete ci diaspora bi mm, mm. nañ leen bàyyi ñoom ñu doxal groupe bi it wax dëgg yàlla eh, chaque màggal ba ca ginnaaw suba sa chaque année dañuy ñëw def réunion bu mag sama sama sama buntu kër ñoom ma soppe yëpp nekk ak ñu màggal si te nekk ci réew mi ku ci màggal rek at mu ne ñetti at yëpp mm-hmm. dañuy ñëw def si réunion bu mag sama buntu kër boo xamante ni soppe yi ñoo koy taxawal eh, jigéen jigéen cinq mille mm. góor mm. six mille la ñuy teg mm. ak social ak am na lépp wax dëgg yàlla euh, euh, euh, loolu daal foofu daal ah. ci la soppe yi tolloogul sëñ Abdou Lahad Gaye nag moom moo ubbi groupe bi ñu wax gën koo xam ci Abdou Lahad war numéro 4 te xam ni kooku moom moo nekk ci sama ginnaaw moo ma jàppale nag waaw moom waxtu wu ne ba may mm-hmm. ñëw nii rek mm-hmm. këram laa jógee ni ko dañ maa invité yi mm-hmm. mooy ki ñu doon jëlal bi may sargal kër ci université ba kooku moo ma invité ci laa jëm nii mm-hmm. Mm-hmm. laa jaar door a ñëw fii ñu ngi koy ziar baax a baax si Abdoulaye Gaye ah, euh, ñu ngi koy ziar baax a baax mm-hmm. waaw ko foofu laa bëggoon ñëw sax muy euh, suuru bi ñuy université Cheikh euh, xam ne ruusoo ko foofu noonu ak bis bi boobu nag damay damay wax ni sargal boobu dama koy sante eh, soxna amisin la longol Serigne Souhaïbou du doonoon soxna Serigne Souhaïbou nga xam ni mooy waajuru sëñ Mourtala ak sëñ Baaram sëñ Souhaïbou nga xam ni kooku it mën naan la ci université ci sama njàng rek la dégg ci université bi taal otaam ñëw fekk ma ci université bi ni ma yow day damaa déglu sama njàng mënatumaa toog sama kër te gisuma la jël ma tefal ma teraanga yi bëree bëri keroog sargal boobee moom moo ko def teraanga yi fa indi yëpp moom moo ko def ba mu ma jàppee ba tey bàyyiwuma ndax lu ne mi mu koy defal gis ngeen sargal ba lam fa joxe lépp ànd ak am mbooloom ay magam ay rakkam ñëpp ñëw ci bis bi ñoom euh, Youssou Diop it sëñ Youssou Diop is euh, bu jàpp ci Abdou Lahad Ka moom itamit jàpp ci mm. ba gis ngeen bi bis ba kerek ne mu euh, réussiré lépp too fexe mm. xam ne DSTV nag mm. def ci liggéey bu am solo boo xamante ni kerek bi ñu jëlee vidéo bi ma demee Touba TV li ko waa Touba TV tegee dañu mi xanaa lii téléphone rek filmé ko mën leen DSTV yi ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko filmé dëgg yàlla ma am ci mbégte loolu nag ndeysaan ah. waa Touba TV euh, maa ngi fay ziare Serigne Am Diop mhm. euh, ca Touba ak waa Touba yëpp macha sëñ Mourou Fall jërëjëf muy la am am solo waaye sëñ Mourou Fall ñu bëgg a ñëw ci actualité nag xew-xewi réew mi mhm. sëñ Mourou Fall ndax mu ngi actualité waaw ñoo ngi koy suivre nag mhm. bu baax ñoo ngi suivre actualité ci réew mi toll ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax doonte fesuñ ci nag waaye ñu ngi koy bàyyi xel damaa gis ni euh, jànkat ci bëri dafa mel ne euh, wàll euh, réew mi ak ni muy doxee ñu ci bëree bëri daanaka xamuñ ci lu bëri nii boo waxoon loo wax fi ne leen di jaaxal dana man de Sëñ Tuubaa rek loo xam ne maam lu araam la daanaka sax daal ñoom ñoo xam loolu waaw xam nga politique moom mm-hmm. boo ko araamalee rek mu mm-hmm. daal day daal di araam mm-hmm. man moom daanaka comme li nga wax rek sëriñ bi dong la ñuy dund waaye nag lii dafay loo xamante nii adduna la. dafa ànd ak àdduna mm. ànd ak jamono it. Mm. ndax jànkat yëpp a yore téléphone. te it téléphone moom ku ko yore. Mm. di nga gis li xew ci réew mi. donte waxoo nga wax ak ñàkk wax moo ci am. waaye donte politique gun waaye li xew ci réew mi lépp moom. ñu ngi koy xam ndax citoyen lan te it bëgg nañ xam li xew ci réew mi ëllëg. ñu bëgg a xam ëllëg it suñuy doom ak suñuy sëtit ëllëg ñu mën a tegu ci yoon woo xamante ni tey euh, yoon wu baax lay doon yoon woo xamante ni tey ëllëg suñuy doom mm. duñ ñee kenn mm. loolu moo waral tax li ñuy xool ci internet bi mm. di ko ci xool waaye taxutit ñu def ko yitte boo xamante ni tey dañ naan nangu ca politique ba déedéet ñun politique uñu waaye lu ci réew mi xam nañ te it citoyen leen woote jotee dañuy jël suñu carte dem woote waaw waaye suñu Modou Fall amul ko àndal la ci déedéet man moom wax dëgg yàlla amoo péete waaye nag sama xol moom am na ko ci ne am na ko ci ne daal macha allah am na ko ci ne dafa mel ne euh, jàngale xasaay yi xam nga euh, yeneen ñi nga xam ñooy liggéey ci beneen domaine yi mm-hmm. euh, ñoom mel ne bu ñu bëggee tukki wala dara dana leen yomb lool waaye bu dee ab jàngkat boo xam ne bëgg ngaa tukki mën naa jëf foofu ma laa ngay ànd ak bu dañuy jàng-jàng aw rawatina ngay ànd ak say awkat dafa mel ne loolu boo dee xool ñàkk gi ñàkk adré wu xam ci réew mi ak ni muy doxee man dañu bokk daal daa ñu bëri dañu bokk dañoo toog naan sëñ bi sëñ bi rek waaw loolu loolu nag xam nga mm-hmm. àdduna loolu nag mooy moo ñu solo ñun jàngkat yi mm-hmm. ndax fi mu toll nii mm. maanaam. Mm. tey boo ne ab jàngkat laa rek sëñ Tuubaa rek sëñ Tuubaa rek waaye te te te tey it. Mm-hmm. war naa wër adduna bi yëpp. ndax dangay ngay gis musicien boo xamante ni. Mm-hmm. day génne benn cassette. Mm-hmm. wala ñu invité ko ci benn télé. mu xëy dem ambassade ñaan visa ñu may ko. te loolu jànkat bi mënu ko am. may gis ñu invité ñoo xamante ni. maanaam nit ñoo xam lu ñuy wax tekkiwul dara. tekkiwul dara te waxtu wane ñu ngi leen di invité ci plateau yi. di leen dalal. te jàngkati xasida yi nekk. mu doon nag. ma xam ne nag nit ñi damaa jàpp ni mm-hmm. dañoo desee bëgg lu baax mm-hmm. ndax ñi nga xamante ne ñu ngi ci yoonu baax mm-hmm. nekk ci xasida yi sëñ Tuubaa yi ñu tegu ci yoonu siraatal mustaqima di sikka ñii nekk ci ñii di tàgg Seydina Muhammad yaakaar sallallahu alayhi wa sallam yaakaar naa ne ñooñu ñoom lañu war a gë gërëm a favoriser. Mm, nekkee musique mm. musiciens yi. man loolu laa gis man. waaye nag jàngkati xasida yi nañ xam ni. Mm. sëñ Tuubaa yor seen lépp. loolu moom nañ ko xam. képp koo xam ne yaa ngi jàng xasida te dëggal te ko ci aw yoon. Mm-hmm. na nga xam ne sëñ Tuubaa yor seen lépp. bu la yàkkamti lépp dana ñëw. ku ci yàkkamti ba def ci a def it da nga xam ni sëñ mm-hmm. Tuubaa da lay jëpp waaw waaye ñun moom. Mm-hmm. sëñ Tuubaa yor suñu lépp. waaw Euh, muy lu am am solo tubaarkalla comme ni nga ko waxee rek euh, maanaam euh, jàng xasaar yi ñoom it war nañoo bokk maam bokk xam la xew ci réew mi mm. di ko suivre xam ne kenn gënu leen a bokk ci réew mi ndax bari na ñoo xam saa yu bëggee tukki wala rek mel na dana xaw a jafe ñoom bu baax a baax tubaarkalla muy lu am solo ñoo ngi lay leen ziar waat yi ñi nga xam ne safo seen seen bi DSTV la seen réalisation bu actualité tubaarkalla Serigne bi waaye ci caméra bi ñu bàyyi mudloo Ndiaye Tara nga suñu Bassirou ñoom ñëpp tubaarkal ñu leen ziar ba Serigne Cheikh May jeng ñong koy ziar ak groupe soppe Serigne Cheikh May jeng yépp Serigne mamour Mor Ndong jànkatu ko sayit ak wa groupe yépp soppe Serigne Mor Ndong ñom ñëpp ñong leen ziar baax ñi ay jankal yu baax a baax tubaarkal la ah kon Serigne Modou Fall xamna dañuy daal yëkëtil ay ay bayri xasaay rek bu ko defee ñu daal di wéyal ci daal ndax mel na ni boobu léegi ñuy waxtaan waaye xasaay moom am masha ci am solo la براس من بارت سمي براس man يبارز الملتقم البارس من إذا طلبت من إلهي جل وإن سرعت جل باب مرامي باخي من الأمراض وأتم من منكر باكتراني لو شكوري على آياتي عبد خبير من فاز بالآيات أذكر سورة الذين سربوا من أبي والابتلاء يا عبد الله لعن خير معجزة من بعد اليسر خير يجعل الجلال بالجاه وسور لي يكون كالخيال يا الباقي بلا ماتم ولا تناس ولا سماتم أجاني الباقي الكتاب لا سمام ولا ألاقي كل من تأسم أني جزا والدتي والوالدة خيرا كثيرا لا يزال قاردا نماني بالمسمى متضيف أدي تسليمه نفل الضيف ناقلا عامية إلى سكون من سكر لي خلق بقعي ساما ربي يا مالكي قليلي وربي وقد ما أبي يدعي طبيب براني من كل عيب ومرض وغانني سعة في كل قرار بارك من يا بنفسي بالفجار إلا الذي أباب ولم تتجار هو الكريم الأكرم المكرم waliyan min la yarimul karamu muhammadun wasilati wa junnati an kulli ta'in wa asan wa jannati ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan sëñ Mourou Fall ay waay allah sëñ Mourou xelep eh, dem na ci sëriñ Abdou Lahad Seye ya, Gueye macha allah ñu ko ñaanal suñu borom yokk ci yërmande ak njëgal barke xasaay di sëñ Mourou sëñ Mourou Fall ah tubaarkàlla macha allah xolep yëpp sedd na ma sha allah ñu leen jaajëfal bu baax yéen ñi sama DSTV Dieng eh, Saala la seen réseau actualité ngañ dem ba Dakar Ouest soir Ouest soir ñu ngi koy ziar bu baax ngañ borom ñaw yi rafet yi tubaarkàlla moom da koy japp ci liggey bi la ñu ngi koy ziar bu baax a baax di ko jox wàccuwaayam Baye Sidi Jenn ñu ngi koy ziar bu baax ci kër ña wa kër gi ñep nday aw soor jenn ñu ñëpp aji eh, bayiwun kenn rek eh, tubaarkàlla bu ñu limé dinañ jumal duñ matal ñoo ngi leen ziar baaxa baaxa baax a kala bu mel ne euh, li ñu dese ci waxtu serigne Mourou Fall tut euh, ndax maam yeen kaddu soñi ngay euh, indirect rawati na nga xamne ne ñoom nga bokal xasaay di ñi di sey rakk ñi di sey doom. waaw di sant yalla bu baax rek serigne Modou sant Serigne Touba khadim rasoul soñi bi wessu wul len rek sama ak sama mbokk jankati xasida yi. moy mm-hmm. nañ xam li ñu yor. moy mm-hmm. lan moy mm-hmm. xasida te serigne Touba def ni karamati xattu yedd yi. sama kiraama yëpp mm. mu ngi sama mbindum loxo nii mm, mm. kon xasida yi mooy lépp sëñ Tuubaa kon ku ci nekk rek képp koo xam yaa ngi ci nekk rek buñ la gisee rek nañ la xoolaat sa melokaan sa sa sa yar say teggin waaye mhm. sag taalibe sag taalibe loolu dafa war a feeñ ci jànkatu xasida wallaay wallaay loolu kenn ku ci nekk ak oyof mhm. ndax ni nga mel mhm. defoo ni sa bopp sëñ Tuubaa leen def dëgg la dëgg la kon gis ci sëñ Tuubaa doom loolu mooy li nga xamante ni dina ko soññee sama diggante digganteeg sama mbokk jànkat ci xasida yi waaye di ñëw rek sama mbokki taalibe yi nga xam ni. Mm-hmm. ñoom la ma sëñ Tuubaa booleel. ñu yëkkati seen i teraanga. Mm-hmm. di ma ko jox. xam naa ni. Mm-hmm. su ma ci tuddee ku ñuy wax Serigne Modou Khoura Touré. di jërbaat Serigne Mbaye Touré. nga xamante ni wax dëgg yàlla teraanga yi bari. dama koy defal. Euh, moom sëñ Modou Khoura. maa ngi koy nuyu lu baree baree bari. ndax euh, depuis ba nga xamante ni yàlla dogal na. fekk na ma ci université bi ak tey. teraangaam du jóg ci man wenn waxtu. muy tabaski muy magal li waxtu wone mhm. mi ngi yone ay tiranga ak ku ñu wax Serigne Mbacke gay nek ci dubai Serigne gay mhm. wax deug yalla di jambar mhm. nga xamanteni ni na ay tirangaam yo xamanteni ni mi ngi ñew ci man maa ngi koy sante bu baax di ko ak sama mbokk yi nga xamanteni ni sama mbokk yi bop nek ci sama ginaaw te di ma ci waxtu wone ma ngi leen di sante di leen gërem di leen nuyu lu bare bare bare waye di nuyu it ñi nga xamanteni ni samay soppee lañ sëñ Abdou Lahad Gaye su ma ko tuddee rek ak sëñ Moussa Fall nekk mm. ci Ndakaaru mm. ak ku ñu wax sunu yaa ndey si la Murit Sadiya mm. nga xam ni fu moo nekkee Ndakaaru këram laay dal nga xam ni ndeysaan teraanga ber na yu ne tànk feeg ñibbiwuma teraanga bu ne dana ma ko defal ba keroog may ñibbi daanaka saa yu ma nekkee Dakar am fa invitation wala ma dem Dakar rek toppatoo bi dara du ci manqué maa ngi koy nuyu lu bari di ko ziyaare lu nuyu sama sunu waa koñ. Mm. di leen siyaare bu baax. ma kenn. Eh, di siyaare mboolem ñi nga xamante ni. Mm, mm. ñoom laa bokkal liggéey liggéeyu sëñ Tuubaa bi ma nekk. xam naa su ma ci tuddee Abdou Lahad Ka. nga xamante ni jàppale na ma ci côté yëpp nag. ndax boo xoolee ni ma duggee ci université bi. nga xam ne Abdou Lahad Ka jàppale na mu baax. dugg nu conditions yi métti laa ci dugg. xam naa waxtu wi moo ñu ko dul may. waaye kon dinaa dinaa ko dinaa ci xaw a laal tuuti. waaye nag damay wax ni. monsieur le maire Abdou Lahad Ka jàppale na ma te li ko sëñ Abdou Lahad Mbacké mi nga xamante ni mhm. moom la yaakaar it mhm. wane na ko ci man ndax bi ma duggee ci moom mhm. ak tey jii ñaari baat yi ma waxoon sensé gu ci dara mooy li la indi fii daal li la fiy jëlee yaa koy wax wala nga def ko ba fi may wax ak yow nii loolu la nekk ak man kon maa ngi koy sant di sant mboolem université bi yëpp nag bàyyiwuma kenn waaw sëñ macha allah jërëjëf euh, Serigne Modou Fall Xasaay waaye Serigne Euh, tubaarikala ni mu ko waxee muy lu am am solo euh, sëñ Modou Bakhoum Dialibatu euh, ñu ngi koy ziar baax soro maam Faty Dieng maam Faty Saliou tubaarikala ak yéen ñi nga xam ne doon safoo seen site bi DSTV jotaay jànkar yi tubaarikala di jaajëfal baax a baax sëriñ Abibou Thiam ci réalisation bi waaye sëriñ Baye Mourlo ci caméra bi Ndiaye Teranga macha allah sëriñ bi sëriñ Ndiaye 360 ñun ñëpp baax a baax baax wax ni leen ko waxee woon rek émission jotaay jànkar yi fii ci DSTV ku numéro bi Euh, mi ngi noonu 77 612 30 60 wala ngeen euh, jaar ci 76 830 36 06 tubarkalla macha allah euh, soxna Ndeye Awa Fall nekk ca Saint-Louis ak yaayam Mama Aida ñun ñi ñu ngi waajal gàmb gi ñoom it ni allah muy la am am solo tubarkalla ñu ngi jaajëfal ñëpp rek tubarkalla di leen jox dig daje ci beneen ci tay incha allah rabbi fii ci DSTV Dieng Saala di wax wa taala wa barakatuh